wax li nga xam ne moom la yoon tëral mhm. bon mais eh, bi yoon dañoo nekk ci contexte bu particulier mhm. euh, comme ni nga ko xamee am na ñu ay jafe-jafe ci list yi mhm. principalement ci loo xam ne ni dal na ci ñaari coalition yi nga xam ne jàpp nañ ñu yaakaar nañ en tout cas ñooy euh, coalition yi gën a rëy ñoo xam ne xëy na daanaka bu ñu doon làmb dañuy wax naan grand combat bi ñoom ñoo koy seex euh, lu mel noonu nag

ci réew mi wala vraiment ñak dal wala fitna ci réew mi parce que Bobu, ba légui yaangi dégg ñaari coalition yi ku ci nek yaangi wax ku nek yaangi feug deun ku ci nek yaangi wax nan sa morom warul bok donc tay dañu nek ci contexte bo xamné contexte bu particulier la je comprends tay pression bi nga xamné ne moom moo ci wa kaw conseil constitutionnel ba xeyna dogal bi euh, ci délai yi ñu ko waroon a génnee euh, wuñ ko ci ba légui ñu ngi toog leen xaar mm-hmm. mais dama japp né nak xeyna ñakul euh, ñu entrevoir xëy ay solution yo xamné ni peut-être mën am. ci kaw waxtan pour que xëy ñu baña ag ci manam àtte. parce que xam nga lu ñuy wax walu droit droit dafa dafa dafa sew te droit également dafa rigide parce que bo démé ci loi électorale dañ naan la article sàngam lii la wax bo jëlee par exemple lu melni rek parité xam nga tay am nañu liste bo, xamné dañuy wax né respecté wul parité bu féké dañ ko bëgg a ci yoonu droit kese xam nga bokkatul parce que dañ ne ñàkk respecter parité loolu déjà cause de d'irrecevabilité la. Mhm. mais boo gisee mbir mi nag ni nga xam ne noonu la demee mu dal ci ñaari coalition yoo xam ne comme ni ma ko waxee mooy coalition yi gën a rëy mbir mi boo koy àtte nag xëy na am na noo ko war a àttee parce que kenn mënul imaginer ñu am tey ñaari coalition yoo xam ne ñu gën a rëy maanaam une coalition au pouvoir. Mhm. ak coalition boo xam ne daanaka mën naa wax ne si seetee langue politique ñi ci solo la ñu mhm. nga bëgg mhm. donc dañu une situation boo situation inédite depuis mon euh, euh, les indépendances tu histoire politique du Sénégal ak man ci depuis plus de 30 ans nga suis ne matière électorale je suis situation parce mhm. que il est de tradition que parti bi nga nous au moins am cëslaay au niveau de l'Assemblée nationale. am une majorité confortable bo xamne mo koy permettre mu gouverner. mais tay ci contexte bi ñu tollu bu fekkee des listu manam benn bokk yaakaar dañ ko gàntal mais lolu problème la li ñu wax séisme politique lay mhm. euh liste bi nga xam de tamit listu principale force de l'opposition buñ ko gàntalee tamit euh lamb ji day melni intérêt ba ci waron am du safé dara. Mhm. parce que tey mbër yi nga xam ne tey ñoom ñoo doon tëgg grand combat bi daanaka dañ leen di éliminer loolu am na ay jeexital yoo xam ne dina ko am mm-hmm. ci wàllu maanaam légitimité assemblée bi ci wàllu crédibilité élection yi ak ci wàllu même mën naa wax ne stabilité réew mi parce que boo gisee ba xool ñaari coalition yi ku nekk yaa ngi yëkkati sa kàddu naan sa morom waroo bokk mm-hmm. et loolu nag lan lu ñu mën a indil bu fekkee tey conseil constitutionnel dafa àtte àtte boo xam ne nii nit ñi mën nañu jàpp ne jaarul yoon soit mo xam parti bi nga xamne mom moy euh, diriger moy majorité ñu àtte ñakal ko. Mm-hmm. lolu problème la. Mm-hmm. wala tay ñi nga xamne ñom ñoo nek ci kujje politique bi aussi ñu àtte ñakal leen élimine leen dans tous les cas lolu da fay indi li ñu wax ay ay ay germe vraiment d'un conflit électoral bo xamne ne kenn mënul xam vraiment lu mu jëlal euh, indil réew mi ci walu fitna. et justement pour éviter séisme politique boobu ngay wax ndax conseil constitutionnel amna droit mu mu baña a ci texte yi rek mais mu xol nu ñuy outé conciliation. waaw xam nga xeyna lolu sax dama jàpp du cëru conseil constitutionnel. Mhm. xam nga fi suñu tradition politique bo seetee à chaque fois mu ma am ay crise politique bo xolé même ci jamono président Abdou Diouf. ci jamono président Ablaye Wade. amoon mhm. nañu ay crise politique yo xamné ne yu mais boo seetee amna ñi nga xamné euh ñoo doon dox ci souf ba régler problème yi ñu wax vraiment ñu doon def la diplomatie de l'ombre mm-hmm. ma ngi ko ci mbiru assassinat maître Sey bi fi amé ak limu indi ci ciow ak ay arrestation procès ak vraiment fantasiro bi mu indoon ci diggante à l'époque euh, opposition bi incarné par maître Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf amna na ñoo xam ñoo ci dox dañ ci doon tudd ci melni ay ñom Famara Ibrahima Sagna et cetera mm-hmm. ak ñoo xamné xeyna na sax sénégalais xamuñu len mais heure bu rew mi nekkee ci ay jafé jafé ñom ñoy jóg sol sen dal euh bayyi ba goudi dem set nit ñi parti ku ci nekk wax ak ñom ñu trouver solution je pense que tay fiñu tollu au vu des enjeux ak risque yi nga xamné mom mo am pour que manam rew mi basculer il faut que donc tay mu am nit ñoo xamné dinañu sol sen dal dem waxtaan ak vraiment acteur politique, yi dem rapprocher position yi lolu li ma bëgg wax foofu moy dañu wara a tay ci li ñuy wax euh, vraiment la la rigidité juridique loi bi dafa wax li mais dañu wara allier pour man vraiment euh, le droit ak vraiment quand même la concertation war am vraiment équilibre bu ñu wara trouver pour waxtaan waxtaan bo xamné pour man dina mën indi jàmm parce que en fait c'est ça qui est le plus important. bu fekkene tay droit bi buñ ko doxalee vraiment dans toute sa rigueur mën indi jëye ci rewmi mi je pense que seet ay voies et moyens yo xamné acteurs yi dinañ trouver solution bo xamné ne dinañ ci meuna a man japp na né vraiment lolu ken bañu ko et motax ñun société civile. Mhm. ñu ngi ci xalat bo ba légui man yëf yi bu mu commencé ba léegi daanaka presque dama ci xawoon noppi waxuma ci woon. Mhm. mais je pense que jot na parce que effectivement acteurs yi seen bopp malgré feug dënn yeeg ak ku nek ni ngay wax ñom seen bop bëgg nañu actuellement ku leen euh, euh, fexé ba dimbali leen ñu mëna trouver solution. pour que ñu mëna dem ci élection yo xamné élection yu yu yu daal la. c'est important day di met. ñu lay nuyu bu baax baax nuyu Fatou Abdou nuyu itam bu baax baax Babacar am mbégte dara laan fi alors euh, processus électoral bi bari na ay ciow ñun nemmeeku ci ay légèreté yu bari alors est-ce que légèreté yoy c'est acceptable est-ce que lu ñu mënoon xaar la ci jamono ji. waaw xam nga euh, légèreté peut-être man sax du légèreté mais ku xam maanaam gis nga complexité. mais mais mais, mais comment comprendre ñuy confectionner ay liste respecté wu ñu parité nga xam ne loi la ñu gis aussi itam yeneen rëq-rëq yeneen manquement yoo xamante ne nii mu dal ñaari coalition yoo xam ne ku ci nekk am nga expérience ci wàllu élection waaw foofu laa bëgg a ñëw xam nga tey boo seetee liste bi ñaata département la ñoo xam nga am nañu 46 département les 15 euh, départements euh, de l'extérieur enfin les départements de l'extérieur où il y a 15 députés qui sont qui sont élus On a une liste nationale mais bon c'était. nga jël par exemple eu à il y a ñaata département la donc parité xam nga Dakar règle, ben département sur 46 Mais c'est mais liste nationale daanaka respecté la parité sur les quarante six départements fépp respecté nañu parité mais ci liste nationale suppléants yi mu am bon mën lu ñuy tuddee erreur ñaari jigéen ñoo xam ne dañ leen toftal donc ñu ñàkk respecté parité c' boo xamee processus su investiture ni muy demee ak complexité bi ci nekk lu mel noonu mën na daal ku nekk damay jàpp ne pour man donc erreur la parce que quand même du ñu wax ne cuune la ñu parce que parti la ñu yoo xam ne yàgg nañu dem élection nous avons presque 20 ans ou 30 ans d'expérience quand même dans la gestion du processus électoral donc pour moi, dama jàpp vraiment nous de du légèreté ku nekk parce que man mii euh, nee pendant presque euh, plus de 20 ans muy jiite commission d'investiture je nekk mandataire national di dem di déposer dossier ca parti bu mon do yëngu je xam présidentiel, la dem conseil constitutionnel di déposer euh, candidature suñu leader y a une élection nationale Madame suis ministère mais jafe-jafe bi doon am am na année boo xam ne maa ngi la koy wax sànq ci commencement waxtaan bi fanaan naa ñaari guddi ministère de l'intérieur parce que dafa metti pression bi tegu ci kaw vraiment euh, euh, nit ñi nga xam ne ñooy responsable parti dafa metti donc lu indi erreur lu lu yomb la rax ci dolli euh, contexte bii ñu jëm maanaam contexte bi ñu nekk muy élection législative yoo xam ne ni parti yi ci bëri dañuy jouer seen survie politique tey lu ci mel ni benn bokk yaakaar danaka buñu ñaké majorité ci assemblée mais lool dina am ay conséquences sur par rapport ak fa ñu jëm muy 2024 ñi nga xamné tamit ñom ñoy gi principalement la principale force politique est Askan Wi Nous neurbélo ci élection yi aussi dina am ay par rapport à l'élection 2024 donc enjeu bi fofu la nek. enjeu bi en filigrane c'est vraiment le contrôle de l'Assemblée nationale et c'est vraiment la perspective donc de 2024 Lool moy enjeu yi de sorte que ku ci nek donc amna pression bo xamné mi ngi téggu sa kaw ba nga xam ne ni erreur bu mel nii vraiment lu yomb la pour nga def ko mais dama jàpp ne du tayeef du cuune aussi du légèreté. d' accord bu ñu revisiter tuuti histoire politique du Sénégal yaa ngi koy wax euh, situation bu inédite la ñu nekk ni ñu demoon 92 am code consensuel bu 92 ñu ñëw ci élection 93 mu amoon difficulté tey boo doon comparé euh, at boobu ak at bi euh, lan nga ñu ci mën a wax. non du benn. Douben, je pense que la situation que nous avons, c'est sax nous grave 93 parce que 93 avons voté ba Le problème c'est qu'au au niveau de la commission nationale de recensement des votes ci a eu un xëccoo entre bureau bureaux ñu war annulé le ñu annulé xëccoo bi am euh, juge Keba démissionné. tout à fait ñu mu etc. mais cette fois-ci Mme Biri nous nu parce que c'est pour la première fois nga légui parti bi nga xamné tay mom mo moo ŋànk nguur gi ko bëgg éliminer manam du bok ci élection yi du am liste nationale donte dina am ay liste départementale lolu moy déjà majorité ba mënutu ko am assemblée ki nga xamné tay mom moy aussi principale force politique opposition nga bëgg ko éliminer donc du teew assemblée kooku ala kulli aline il faut que mom ay jéxital ci vraiment suñu assemblée bi nga xamné mom lañu bëgg tabax dans dama japonais, vous bu que nous dañu bëgg surtout dans le contexte actuel à tous les enjeux euh, sécuritaires économiques parce qu'il faut comprendre que Sénégal dafa croiser ci croisée des chemins te diggante fii ak